safara pour moom dara amatul suñ borom dund dara lu dul safara kooka moo toll ci xaqul yaqin ba tey sëñ Tuubaa yemul foofu ci boromam waa ji di ñu sànni ci biir safara yi muy bëddaani waxtu wu ci yàggoon diirub yàgg ba tàmm safaraw bëy ba njàppale ci ko dara ba melat na meloon ba nekkee ci génn de kooku mooy tamkiin nga xam ne kon nekk na mu sori ndax xaal mënatu koo gane ba soppi ko am ci mënatu rëy ba mu yëpp ko waxtu tar-tar ak waxtu yaramayam ci moom ku ko joxat ko xañeem ci moom ku matal wëllëreem ak ku ko becc ci moom ak lekk ma suñ ko may yem nelaw ma ñàkk nelaw may yem itteem dafa ànd ak bindee fi ci kaw biiram ànd ak boroomam ak doo jël la te du tàggoog moom mukk ci laay nit ñi ba booba loolu moo tax mu ne bamma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilan binaan allahi nee na sama borom azza wa jalla fab ne sama dund boole ko ko dundam jaxase ko ma tàbbi ci biir àjjana yàlla jël موي جدني عند ملك مقتدر كل ولي من الجنان يقتدر لو ولي غاو غاو دم بروم لو مو غاو غاو دم اجنا دا نا فك فك بروم نغور دي غا خامني موي بروم ساتان دي من ليب في مقعد صدق دا خامني لو تصوص دا نيو واخني بنت فك عرش لو تصاهر عرش لن لا خام خام ادم يمن ñu ne malaayka yu tedd yi sax weesuwuñu ko te araf benn aalam la te juróom ñetti téeméeri jinni aalam yoo xam ne benn bu ci nekk sal nañ aras wala mu ëpp ko ñu tuddee arrajulul kaamilu muhammad yi mooy ku mel ne sëñ Touba dafay mel ne xam ci moom moom lañ tuddee al fardul jaami mooy ci ak suñu borom wax ne man maay noppam ya muy déggee maay bëtam ya muy gisee maay loxoom ya muy jàppee ak ya muy bàyyee fu ma ñaane ma may ko lu ma sant ma defal ko ko nga xam ne mbir mi màgg mi wàcc ci suñu borom tabaraka wa taala jigéen ci yonente bi sallallahu taala wa sallama benn jëmmi wàllu attanu ko benn jëmmi xutba ko ñu dul xutba aw bi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa ci jamonoom moom moo koy séddale ak faam yi nga xam ne juróom-ñaar rek ñoo naan ci adduna bu jugee fa nga jaar ci waa jiwaan bi suñu borom na ko maqaam boobu te taxuloon mu doy nga xam li ñu tuddee al qur'an xaw al di bu borom wa taala dara sama borom dafa jàll ak ci mbind ci lu dul ci affaire lu ci méngoom lu dul ci mu wuutu yàlla ci séddale doole lu ci nag mu teg ko bërëbam ba xam ne moom la yàlla àggale ci fa nga a jëm séddale lépp lu ci ne mu teg ko bërëbam gannaaw loolu mbóotam moo taxaw taxawee ni suñu borom suñu lépp lu yàlla bind mbootam mooy la koy yëngal mooy la koy yëngal nga xam ne xeli picc yi lu dul tuur nga xam ne bu dul mbootam yëpp ko soppandiku ci mboolem màq nga xam ne kenn ci nekk xam na cax ak la nga mos xam fa nga war a naane xam la nga war a tëbboo di la ko defal lépp di jóge ci yàlla di jaar ci moom kooku mooy maqaama xutbul xaw xam ne benn màkk ba génnul màkk daan génnul màkk ba génnul góoram moom moo leen di tëbb loolu ma waral mu ne zimaamul wara asri ladallahi fi yadi wa maaruutuhu min malikin qaada bilhamni mu ne nosu li suñ borom bind muy bindeef yëpp na fi nekkee bu ma ci jëpp ci sama loxo la ko sama borom teg te lu ma ko sant mu def ko xam ne jagoo moo jagoo mbóot mi suñ borom nëbb bi nga xam ne amul benn wàlli wala benn xëy bi wala benn sa bopp na borom boo xam ne sa xel xalaat na am ko wala nga mën koo war moo tax mu ne axbaali yasir almasun allahu xubban wala ilaha illa allahu nee na suñ borom nëbbal na ma ngir topp gi ma topp mbóot mu sell mu ñu ñëwal ma بالمليون ربنا أفضل يسرمكون saya ini